ngeen démb mardi fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2020 ci fukk ak juróom-ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukk ak ñetti simili senegal am na décès bu njëkkam ci covid 19 mu doon monsieur Mababa Diouf ñu gën ko xam ci turu Pape Diouf maa ngi koy jaale ci turu monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale mu nekk ci réunion conseil des ministre président de la république son excellence Macky Sall gouvernement bi ak askanu senegal yépp maa ngi koy jaale mbokkam yi ak xaritam yi maa ngi gërëm di jaajëfal personnel de santé bi yépp ci taxawaayam ci suñu mbokk mi nga xam ne moo génn àdduna ci bésu tey bi mercredi 1er avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom test yi ñu def fukk ak juróom ñoo ci positif maanaam benn cas importé muy ñu jóge bitim réew dugg si si suñu réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi juróom ñaari ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye ñaareelu cas bu grave bi nga xam ne wax nañ ko keroog ci le 30 mars 2020 éva évacué nañ ko démb ci demandu famiyam ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi ñu njëkk senegal woññi na téeméer ak juróom ñeent wër nañu ci mu des téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmoonte ak digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant.